honorable député Mamadou Diop Decroix ñu ngi lay nuyu. ma maa ngi lay fay Fatou. am nañu mbégte lool dalal tey ci waxtaan wi matinalu Rewmi FM alors actualité bi euh, tënku ci mbirum Ousmane Sonko mi ñu teg loxo démb mu nekk ci garde à ci euh, section de recherche euh, loola ak euh, lii ñu sumb ci wàllu yoon jëm ci kawam lana ci xalaatu ànd jëf PADS mi nga jiite. maa ngi lay gërëm di la sant. defe naa ne <clears throat> lii xew. Euh, ci euh, Ousmane Sonko euh, daanaka ba Macky toogee ba tey day moo fi xew ma maanaam xew-xew bi bu ñëw rek day day day day ëpp ba ca des. 2013 mhm. la ñu ko teg Karim Meïssa Wade 2017 defe naa ñu teg ko. Khalifa Sall voilà deux mille vingt et ñu teg ko Ousmane Sonko euh, maanaam euh, li leen yëkkati naka jekk mooy euh, faagaagal opposition opposition li tubaab di réduire sa plus simple expression nga xam ne du man dara du tekki dara la ñu soxla ñoom hmm. ci la ñuy liggéey nag wante du yomb ndax defe naa li jot a xew eh, gis nañu ne sénégalais yëpp dañoo ànd lànk li nga xam ne moom la ñuy def eh, li ñu ko teg du yoon te eh, day wane ne réew mi yoon doxatu fi loolu lay wax saa su ne hmm. dañ ko war a xam ne yoon doxut si réew mi doole mooy dox ci réew mi. kon démocratie amatu fi. lu ma ngoog sànq nee naa la ci tubaab euh, nit ki buy xeex daa war a xam li muy xeex ndax buñ ne nanu xeex euh, ngir euh, dellu ginnaaw deltu ginnaaw gi démocratie di deltu ginnaaw dakk hmm. ak nanu xeex ngir delloo si démocratie ci réew mi bokkut démocratie amatut ci réew mi maa ngi lay dégg léegi li eh, àq ak yelleef doomu aadama amatut ci réew mi maa ngi dégg léegi eh, ki doon def revue de presse bi naan eh, Guy Marius Sagna ca kaso ba dañ ko futti mhm. ah mu ngoog loolu réew mu mu am ak li fi xew démb réew mu mu am ak li fi xew bërkaati démb ak bërkaataati démb réew mu mu am nga ne nañu fexe ba deltu ginnaaw gi dakk non démocratie dafay amatut àq ak yelleefu doomu aadama dafay doxatut kon bu nu jógee di taxaw danoo war a fexe wax ne danoo bëgg loolu dellu si ci réew mi mhm. looloo fi looloo fi ne waaw gannaaw opposition ba bala la a faagaagal nga bokk ci tey lana nar a doon seen taxawaay nag ngir jàmmarloo ak euh, président Macky Sall waaw wax naa la ne euh, tey ci onze heures dinañu daje opposition bi ci front de résistance nationale mhm. dinañu daje jàngat li nga xam ne moo fi xew li wérte wóor mooy moom opposition bi ñëpp tey ñi ngi jàppale Ousmane Sonko jàppale jàppale Sénégal jàppale seen bopp parce que li du mbirum Ousmane Sonko rek wala Pastef rek mbirum ñëpp la kon nag euh, dinañu daje tey ci onze heures euh, jàngat situation bi yaakaar naa dinañu mën a taxawal ay plan d'action maanaam euh, pexe yoo xam ne moom la ñuy tëral taxaw ci pour jàkkaarloo ak euh, Macky Sall ak li fi xew euh, pour mu man fee li fi xew man fee jóge kon daal résistance ngeen di woote yéen itam. mënta ñàkk mënta ñàkk itam léegi loolu su amee it wax naa sànq itam ci tubaab ma ne opposition bi dafa war a organiser. Hmm. parce que au fond au fond lii fi xew lépp lu tax mu mën a am. xam nga ñu léeg-léeg ñu ne waaw Macky salda daa muus Macky Sall daa lii no non non non non non moom mi ngi dawal doole. Hmm. te ñi nga xam ne moo ñoom la ko séqal organisation bi ci war amut loolu dong la problème d'organisation rek la. ñàkk ànd gi surtout ku ne dem booram. organisation moom bala nga koo mën a am sax nit ñuy ànd. Hmm. mais ànd tekkiwul ñépp bokk fu ñu gisee nangam non non non. Hmm. kenn ku ne day seet li mu war a bàyyi. ak li mu war a téye pour que ñu booloo mën a dóorandoo xàccandoo dóorandoo mm-hmm. loolu man yaakaar naa ne bu ci opposition bi taxawee ba pare nag xóotal xalaatam ci lii ñëw euh, parce que attention affaire yi day soog a tàmbali rek de mm. <laughs> ah, day soog tàmbali rek donc il faut yooyu ñu bàyyi ci xel pour euh, mën a mën a mën a mën a mën a mën a jekku Macky Sall. buy soog a tàmbali fan ngeen yaakaar ne Macky Sall mën na faa yegg ak yéen mbaa Sénégal. non waaw kay ak Sénégal ngay wax. waaw ak yéen. xam loolu itam moo loolu bokk na ci li gën a yombal Macky Sall liggéeyam. Hmm. saa yu opposition bi jógee taxaw nit ñi toog tegale seen tànk. foog ne opposition bi lay xeexal jàpp ne jàpp ne pouvoir bala ak opposition ba. Hmm. sax saa yu ma masaan wax dama leen naan déedéet yéen a ngi juum. lii raam ci ñag la jëm yegg si nag léegi yegg si na nag léegi ci ñag bi mais euh, gis naa ne vraiment euh, sénégalais yëpp xam nañu loolu euh, ñi mën a jóg ñi ngi jóg ñi mën a wax ñi ngi commencé di wax moo tax ma ne la affaire bi départ la de affaire bi. day doog a tàmbali. ah non non non ça ça ça va être mm. ñi nga fi lim ñëpp faagaagal gi mun na ko waxee noonu ci wàllu yoon la jaar ndax loolu dafa tekki ni yoon euh, moomul boppam ci senegal waaye non moo tax foofu laay ba tey ba tey ba tey ba tey ba tey ba tey euh, loolu bokk na ci li tax jekkoogunu Macky sàll parce que mbir boo ko bëggee faj feebar boo ko bëggee faj da ngay xam lu mu. Mm. fu feebar ba jóge nu muy doxee. ak yu mel noonu soog a mën xam garab yi nga ciy def pour mu faju xam nga bu ñu nee euh, euh, est-ce que euh, ma ma ma ma maanaam. indépendance de la justice am indépendance de la li fi tubaab yi tabax ñun ca jamono yooyu jamonoy colonialisme ba tubaab bi demee dañ ne colonialisme bu bees la néocolonial moom la fi teg mm-hmm. loolee mu fi tegoon ba léegi dañ koo teggeegut loolee mu fi tegoon prévoiruñu justice boo xam ne dafa war a am liberté am lii di def lii di def laa di def alors bu ko defee nun intellectuels yi ñuy dawal loolu ci suñu bopp yi mm. di ko gëmloo nit ñi te amut mais dafa amut amagunu liberté de la justice amagunu ay assemblée yu yuy dox ci ci yoon amuñu ko kon daal li fi newoon moo fi ne ba tey am na dalay am député yoo am dañ la naan. li hmm. eh, kayit yi ngi ñuy dañuy sonal rek. bàyyi leen bu wootee jotee ngeen nu ne fii la ko Macky Sall bëggee nu wootee ko fa mu jeex. Hmm. nu daxi suñuy soxla. wala assemblée ba ba pare daal di jóg dem naan café alors justice bi waxuma juge yi ak magistrat yi. Hmm. institution bi mooy doxee noonu. parce que exécutif bi moo ko yilif. moo naan kii tey doo fi ne demal Tambacounda demal Kédougou moo naan yow doo avancé yow laay yëkkati yow laay lii yow laay lee yow laay te nit ñi nit rek la ay fonctionnaire la ñu mhm. mais loolu moo fi nekk ci réew mi donc bu ñu nee waaw euh, moo tax daal defe naa ne war na noo xam ne amaguñu li ñu naa république amaguñu indépendance amaguñu Euh, <laughs> loolu nag soo ko amut itam. Mm-hmm. jafe-jafe yii ne ci réew mi. te tey dama la ne euh, yooni ndox yooyu le mm. euh, gone yi dee ci géej gi. Mm-hmm. ma maanaam maanaam maanaam yaakaar yu tas yi. ma ma ba di di di. jafe-jafe yi daal ci tënk. jafe-jafe yi askan wi di loolu yëpp moo dajaloo way tey tombe ci mbirum Ousmane Sonko mile nit ñi ne du fi amee te wax nañ dëgg yaa kon daal yow honorable su ma la déggee euh, euh, Sénégal lam fortaatu woon ci as tuut ci ay acquis euh, dëgg lam déet sax wala bu fekkee am na it ndax yooyu yëpp tey dañu ko far ñàkk ñàkk nañ ko te nag aussi danoo danoo bàyyi suñu bopp itam hmm. waxtaan wax dëgg ca la boo waxee ki ka jàkkaar lool ñaawlu ay jëfam hmm. war ngaa seet yow lu tax loolee mën a am ndax itam fukki at a ngi yoo xam ne mësu cee jóg moom ci li mu ne ay la yéwén bu ñu waxantee dëgg. waaw lu mu teg doxal ko ah. ma ne lu mu teg doxal ko. waaw lu mu teg doxal ko lu tax nag parce que li nu war a taxawee dañu koo taxawewut te loolu du rekk opposition parce que peuple bi. Mm yi ñoom dañu am na ci ñu bare ñuy jàpp ne mbir yi. Ah, dañuy wujji rek faatu la ak kumba hmm. fekk du loolu fekk ñi nekk ci opposition bi li ñuy wax loolu suñu ci jógut ba mu sotti li Sénégalais yi bëgg du mën a am ndax itam bu fekkee ne ki yor bu jubalee mi ngi fi bu dëngalee it mi ngi fi te jubal a gën a jafe dëngal hmm. gën dëngal a gën a yomb jubal kon kay mu dëngal ci la ñu ne ñoom parce hmm. jàpp nañ ne dara du leen ci fekk waaye bu fekk eh, lii xew fii am na ay réew yooyu xel mënu koo xalaat xel mënu koo kukkus futti guy gii mari saaña ca kaso ba am na réew yooyu su amoon tey ministre de l'intérieur ba daanu na ministre de la justice ba daanu na ñen ña yor prison ba daanu nañu et cetera et cetera mais fii du am kon Sénégal sori na démocratie lool mais eh, eh, trop trop moo tax aussi nun même suñuy wax même wax ji même wax ji hmm. Hmm. baat yi ñuy baat yi ñuy jariñoo hmm. dañ ko war di set parce que boo nee waaw léegi danoo war a xeex pour démocratie bi di dellu ginnaaw ñu dakkal ko kon yow jàpp nga ne démocratie am na daa daa nekk rek di dellu ginnaaw waaye am na waaye boo nee danoo war a xeex pour démocratie dellu si ci réew mi wax nga itam sànq ne yii jamono dalay fàttali yoo jot a dund ba nuppi kon Sénégal ah. dem na fu fu sori fu mu nekkoon. fa waaw waaw ndax xam nga man. Mm. Eh, eh, eh <laughs> c'est vrai xale woon taw Senghor mais bon maa ngi doon ñafe. Mm -hmm. Abdou moom fekk na ma nekk mag. Mm -hmm. nga eh, bi nga xam ne am mais mais jëlal RTS. Mm-hmm. nga xam ne sunu lempoo koy fay. Mm-hmm. fukki at a ngi nii benn leaderu opposition mësut feeñ ci télévision RTS. pour di ci wax jamonoy Abdou Diouf communiqué yi parti politique opposition daan def dañ ko daan liir ci journal télévisé. bu RTS bo bu RTS. fukki at a ngi benn opposant feeñu RTS waaw loolu dellu ginnaaw la wala du dellu ginnaaw bu njëkkoon dañu daan amoon li ñu naa pluralisme waaye amoo. alternance maanaam parti yi bari na ku nekk di wax sa soxla ak yooyu waaye nag wate moom dañ koo ceene woon ba nga xam ne doo mën a gagné élection ginnaaw bi lañu ubbi yëf yi ba élection euh, euh, nit mën koo gagné président bi jóg dem. foofu la ñu yeggee ci beneen laaj bi waa. mais ki moom. kii moom gafa hmm. euh, bëgg. dellu fa nu dellu ne nekkoon maanaam nit ñu ne fi di mbeleleli waaye nag pouvoir moom kenn du ko jege kenn du ko laal. Mhm. foofa la ñuy demee ci beneen laaj bi mooy njeextal gi euh, tey situation bi mën ñoo mën a am ci élection yi ñu dëgmal notamment présidentielle ndax ñu bari jàpp nañu ne 2024 le président Macky Sall di waajal moo waral lii lépp loola nga yaakaar. non xam nga man franchement euh, euh, <laughs> nekk naan lii la Macky Sall di waajal lee lay waajale mhm. non li am solo mooy naka la ñuy fexe ba d'abord lii muy doxal nu dakkal ko. Mhm. mais en même temps ba leneen lu mu bëgg a doxal ëllëg ki si biir itam du mën a ne alors boo tax gis la même wax ju bari ji. Hmm. wax ju bari ji. Hmm. mën naa sax faagaagal jëf yi ñu war a jëf taxawaay yi ñu war a taxaw. Hmm. parce que ab mën ngaa boo yendoo di wax ba jan so man ngaa jàpp ne wax ji jëmale na mbir yi kanam. te wax ju du jëmale dara kanam. kon daal ci jamonoy jëf lañ toll. ci jamonoy jëf moo tax nun ànd jëf la nu tudd. Mhm. tudd nu ànd wax. <laughs> wax nag baax na bu dee pour lu yee pour nit ñi mën a xam li xew ak yu mel noonu. Mhm. baax na waaye nag jëf moo ci ëpp solo. jërëjëf. jërëjëf honorable député Mamadou Diop Decroix ñu ngi lay gërëm nga jiite ànd jëf PADS euh, nekk itam euh, député ci assemblée nationale ñu ngi lay gërëm amoon mbégte lool dalal la ci matinalu Rewmi FM tey mënees na la teeluwaat ci Rewmi point com ak Rewmi officiel jërëjëf Fatou mais Fatou Fatou maa ngi doon bëgg a wax itam ne la député yi waaw euh, recours boobu ñu déposé conseil constitutionnel nun ñëpp nu signé ko loolu itam defe naa ne am na ci solo parce que am na ci mhm. voilà am na ci juriste yi ñu mhm. loolu sax a Euh, <laughs> ñu ñu ne Ousmane Sonko léegi waa à l'ordre public voilà mm-hmm. mu ngoog pour mën teg loxo jërëjëf honorable daanu am xëy na yeneen jotaay yu gën a yaatu bi ngir mën a dikkaat ci lii lépp ak seen taxawaay bi ngeen nar am ñu ngi lay gërëm ma Mamadou Diop Decroix jiite And Jëf PADS